أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom ma ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi suñu dars tey ñu ngi koy def ci ngëneel yi nekk ci fukki fanu tabaski gis ne ci lañu tollu kon war nañu soññ sunu bopp soññ mbokk yi pour ñu xam yiw yi nga xam ne moom la sunu boroom subhanahu wa taala defal jullit yi ci fukki fan yi ñu nekk mu nekk mawsim azim saison bu rëy rëy rëy jamono ju rëy rëy ju màgg wa inna min fadlillahi ala nnaas an yassara lahum mawasimul xayraat bokk na ci xéewal yi yàlla defal jaam ñi xéewal yi ñu yàlla defal ñun jullit ñi mu yombalal ñu ay jamono yoo xam ne yiw moo ci nekk pour ñu profitoo pour ñu am tiyaaba boo xoolee weeru koor weer wi yépp yiw la yàlla moo nu ko baax soo xoolee laylatul qadr guddi gi yëpp yiw la yàlla moo nu ko baaxee boo xoolee bisu àjjuma bis bi yëpp yiw la yàlla moo nu ko baaxee kon mu nekk mawaasimul xayraat comme ni ngay gisee fukki fanu tabaski dafa am ay jamono yoo xam ne yàllaa koy baaxee jaam ñi pour jaam ñi góor góor ñu am ay tiyaaba comme ni ngeen di toogee ba caagre ngeen gis waa orange daa def promotion wala ngeen jékki-jékki waa Tigo wala ngeen jékki-jékki waa Expresso comme noonu nu muy demee jékki-jékki rek daan ne ku def lii daal di am 100 pour cent loolu tamit sunu borom subhanahu wa taala daf nu koy defal ñun jaam ñi ndax ñuy màng ay tiyaaba yu bare bare bari ci ay guddi wala ay bëccëg wala ay waxtu mbokk yi lan moo tax sunu borom subhanahu wa taala di nu baaxe bëccëg yooyu di ci double sunuy tiyaaba yuawiduuna fiha ma faatahum min xayrin fi l aami kullihi sunu borom buur bu yéwén la ci ñun daf nuy sant bu nu santee léeg-léeg ñu sàggan mu digal ñu ñu lànk bañ a def léegi nag mu ubbil ñu ay buntu pour ñu profitoo suñu defee tiyaaba yi mu remplacer tiyaaba yooyu ñu bañoon def ya ñu fàtte woon wala ñu bañ ko def wala ñu juum wala wala wala ndeysaan gis nga lu mel ne weeru koor dabaatal la lu mel ne ajjuma dabaatal la lu mel ne fukki fanu tabaski dabaatal la ci ay bëccëg yoo sàgganoon yoo jaamul woon yàlla soo profité fii mu remplacer fële ndeke loolu tax sunu borom di ñu ubbil bunt yooyu wa min hasil ayaam bokk na ci bëccëg yooyu yàlla yàlla ubbil ñu ay xéewal ayaamu asara zilhijja mooy fukki fanu tabaski tey la ñaata tey la premier ah bien yéen a ngi ci calendrier tubaab bi de man maa ngi ci calendrier islam ci calendrier waaw parce que dañoo matal fanweer bii dafa arminaat bi kii la dañoo matal fanweer ci weer ci lislaam ñaata fan la weer ci lislaam ñaata fan la ñaar fukk ak juróom-ñeent ah ñaar fukk ak juróom-ñeent weer ci lislaam du fanweeri fan de calendrier islam weer wi vingt-neuf jours la lan moo ko yóbbu trente suñ gisul loolu moo tax moog bii ñu am juuyoo ñoo àndoon ñoo àndoon ba démb c'est parce que démb dañoo matal 30 xool nañ weer wi gis ko ñu matal 30 moo tax tey nekk fii ci calendrier islam bi nekk tey nekk premier dañoo matal démb 30 ok mbokk yi fay ayaamun mu'zama nañu jàpp ne bëccëg yi bëccëg yu rëy la ci yàlla bëccëg yu màgg la fi shar'illah ci diine yàlla fukki fan yi moo gën bisu àdduna yépp bés yi nu nekk suñ la laajee yan bis ñoo ci gën mooy fukki fan yi ñoo gën ci bisu àdduna yi amul benn bis booy natt lu dul bis yi ñoo ko gën kon rawatina ci jaamu yàlla ci def ci lu baax sunu borom subhanahu wa taala lan moo tax ñu ne bëccëg yi ñoo gën ci bëccëg yi mooy yàllaa ci giñ yàllaa giñ ci fukki fan yi yàlla moo wax ci alquran ci suratul fajr aya 1 2 borom bi ne wal fajri wa layaalin ashr qala ibnu kasir wa layaalin ashr almuraadu biha asra zilhijja suñ borom ne giñ naa ci fajar xam ngeen fajar mooy heure bi ñuy julli julli fajar sunu borom nag moom dong moo am droit giñ ci mbindeef yi amma mbindeef amul droit giñ ci kudul yàlla sunu borom nag bu ko neexee mu giñ ci mbindeef yi ndax moom moom mbindeef yi mooy borom mbindeef yi mooy borom jaam ñi te fajar ci jaamu yàlla yi la bokk sunu borom giñ ci mu ne wala yaalin ashrin ak fukki fani tabaski man yàlla maa ci giñ ibnu kasir nee na kenn la ci firikatu alquran yi nee na li yàlla namm ci wala yaalin asr mooy asara zilhijja mooy fukki fanu tabaski kama qala ibnu abbas ibnu abbas loolu la wax ibnu zubayd zubayr loolu la wax mujahid loolu la wax wa gayru wahid min as-salaf ak lu ëpp kenn ci ñu jiitu woon wal xalaf ak ñi nekk ci jamono ji borom ñooñu ñëpp loolu la ñu wax borom xam-xam yooyu jëlee nañ ci jaabir mu ne inna ashara ashara duha adduha nee na fukki fan yi fukki fanu tabaski la wal witr mooy yowmu arafa wa shaf'u yowmu nahri li yàlla ne wal fajri wa layaalin ashr wa shaf'i wal watr ashar yi mooy fukki fanu tabaski wal watr mooy yowmu arafa wa shaf'i mooy yowmu nahr mooy bis bi ñuy rendi yowmu saamin mooy juróom-ñetteelu fan mooy bis bi ñuy rendi bisu yowmu nahri waa mooy bis bi ñuy rendi sunu borom subhanahu wa taala giñ ci bis bi ñuy rendi giñ ci bisu arafa ak fukki fani tabaski loolu moo lay won ne kon fukki fani tabaski bëccëg yu màgg la bëccëg yoo xam ne ñoo gën ci bë- yeneen bis yu dul ñoom qaala taala wa yazkuru sma allahi fi ayaami maalumaat ala ma razaqahum min bahimati l an'am suratu hajj aya 28 suñu borom ne bëccëg yi dañ ci war a tudd yàlla moo tax di ci wax allahu akbar lu bare bari allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd di ci màggal yàlla di ci def tasbix subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah mu ne lii tegtale na dallat sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala fadliha annahu yusra atanafusu fiha fi saalihi al amal nee na sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëw na di tegtal ginnaaw farata ba mu waxee ba yàlla waxee sunna tamit ñëw na di tegtal ne bëccëg yi bëccëg yu gën ci bëccëg yi la dañ ci war a gaaw njëkkante ci ci jaamu yàlla pour lan lañu passé woon ci ay bëccëg yu ñu sàggane woon ak ay guddi yu ñu yàccaaraloon ñu góorgóorlu fii dabaatal ko mu ne ma min ayaamin al amalu saalix fihinna ahabu ila allahi min hadihi al ashara amul jaamu yàlla fuñ ko gën a bëggee ci ay bëccëgam lu dul ci bëccëg yi ñu toll soo doon julli góorgóorlu nga baril julli ji soo doon woor góorgóorlu nga baril koor gi soo doon saraxe góorgóorlu nga baril ko soo doon tudd yàlla góorgóorlu nga baril ko soo doon jàng alquran góorgóorlu nga bari ko boo doon def ñaari rakk fan ñeenti rakk soo doon saraxe ñaar dërëm saraxeel fukk soo doon woor benn fan wooral ñaar wooral ñett wooral ñeent soo doon jàng benn hisib jàngal ñaari hisib loo doon def ci lu baax yokk ko parce que ci bëccëgam yooyu lañ nekk mu ne qaalu ya rasulallah wala aljihaadu fi sabilillah waaw yonent même jihaad ci yoonu yàlla tabaraka wa taala ndax bëccëg yi ak jihaad lu ëpp doole mu ne walal jihaadu fi sabilillah illa rajulun xaraja bi nafsi wa maalihi falam yarji min zalika bi shay mu ne même jihaad sax bëccëg yi moo ëpp doole même jihaad ci yoonu yàlla mu ne lu dul benn waay boo xam ne génn na ci bëccëg yii génne alalam génne boppam dem delsiwul mu dem dee ah kooku day moom li mu def kenn mënut a tolloo ak moom ndax génne na alalam génne bakkanam dem dee ci yoonu yàlla kooku day wax dëgg yàlla moom kenn mënut a def toll ni moom jël nañ ci bay xaq yi mu ne ma min amalin azka inda allahi wala azam ajran min xayrin taamaluhu fi ashar al adha jële nañ ci al imaamu bayhaqi mu ne yonent bi nee na ma min amalin amul benn jëf azka inda allahi bu gën a set ci yàlla gën a barkeel wala azamu ajaran gën ta màgg fay min xayrin taamaluhu ci jëf ci yiw wu nit di def fi ashar al adha ci fukki fanu tabaski kon bàyyiwul benn jëf maa min amal la wax amul benn jëf jëf ji lu mu baax baax baax baax jëf ji lu mu set jëf ji lu mu rëy nga koy def soo ko defee ci fukki fan yi ci ngay ëpp tiyaaba boo ko defee ci beneen bis kon doomu ndey yi bu nu yemoolal ndars bi fii rek danañ wax ne kon danañu jëriñu bu fekkente ne tiyaaba dong moo nu tax a jóg bëgg yàllaa nu tax a jóg bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo nu tax a jóg kontaan loo sunu borom moo tax ñuy góorgóorlu bu ñu yemale woon fii rek doy na ndax dégg nañ ne xam nañ léegi ne fukki fanu tabaski amul lu mu tolloolu yiw ci àdduna mu ne wa kaana said ibnu jubair kenn ci ndongo yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sahaaba yi ci àndandoo yonent bi ku tudd said ibnu jubair moom daana def ida daxala ayaamul ashara bu fukki fan yi duggee ñu ne tey le premier mu ne ijtahada ijtihadan shadidan hatta la yakaadu yuqdiru alay yaqdiru alay nee na bu fukki fanu tabaski jotoon moom saat day góor góorlu góor góorlu góor góorlu ba nit ñi ne ah kii moom ndax fukki fan yi dana jeex mu fekke ko day def ba def lu mu mënul ba nit ñi tiital ko ba sax dootul attan li mu yanu ci jaamu yàlla kon mbokk yi bëccëg yaa ngoog jële nañ ci barrage mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na afdalu ayaami dunia al ashara yaani ashara zilhijja gis nga afdalu ayaami dunia fukki fan yi mooy fukki fan yi gën ci àdduna ñun jàpp na ne weeru koor moo gën bëccëgi weeru koor moo gën ci àdduna wala guddig laylatul qadr moo gën ci bëccëgi àdduna déedéet ndeke fukki fani tabaski ñooy bëccëg yi gën ci bisi àdduna mbokk yi jëlee nañ ci anas mu ne kaana yaqulu fi ayaami al ashara bi kulli yawmin alf yawmin wa yawmu arafa bi ashari alaaf yawm allahu akbar anas nee na doon na wax nee na fukki fani tabaski fi ayaami al ashara bis boo ci jaamu yàlla lan lañ lay fay tiyaaba bi kulli yawmin alf benn bis bu nekk junni junni bis lay remplacer ci fukki fanu tabaski benn bis bu nekk li muy représenté ci tiyaaba ñaata la benn bés bu nekk fukki fukk junni lañ lay fay junni bés ndax boo jaamoo yàlla tey ñu fay la junney bés suba junney bés buñ demee ba bisu arafa nag lan lañ lay fay bi ashara alaaf yowm loolu ñaata la ashara alaaf fukki junni bés lañ lay fay bisu arafa soo wooree bal sax jàng ngeen yonent bi nee na woor arafa lu muy tolloog tiyaaba ah ku woor arafa lu muy tolloog tiyaaba
dañ lay baal ak bàkkaar ak ak bi ci kanam ak bi ci ginnaaw.
dañ lay baal bàkkaaru ak bi ci kanam ak at bi ci kanam ak at bi ci ginnaaw allahu akbar mooy wooru bi su arafa na ngeen def attention nag ey na ngeen def attention de soo bàyyiwee kabaayir bis boo wooree bis boo xam ne du arafa waa Makka nga woor arafa waa Sénégal amoo arafa dégg ngeen li mu bëgg a wax bisu arafaat waa Makka kañ la
mercredi àllarba waaw
arafa waa Sénégal kañ la jeudi jeudi gis ngeen ah mercredi mooy arafat mercredi suba bu delsee jeudi la julli tabaski jeudi la ñuy taxaw arafat àllarba la ñuy taxaw arafat jeudi ñuy julli waa Sénégal taxaw arafat jeudi vendredi ñuy julli yéen seen waa arafat yéen seen arafat fu mu nekk yéen waa Sénégal seen arafat fu mu nekk du ngeen ma tontu wala amu leen arafat ban montagne la wala ci kii bi ngeen di dem affaire boobu Ablaye Wade taxawoon ci monument bi ngeen dem taxaw foofu ba mooy seen arafat xanaa après léegi vendredi ngeen julli ndeysaan réer weesuwul réer weesuwul woor alarba julli ajjuma tëpp benn fan ci diggante bi réer weesuwul loolu ku nekk xam nga ne jàng ngeen ci diine ba yonent bi tàmbalee woote ba fii nu nekk su yonent bi taxawee arafaat suba mooy julli ñëpp xam nañ loolu ñëpp xam nañ loolu adduna bi yëpp xam nañ loolu ba mu des nun waa Sénégal woor arafaat àllarba noppalu alxamis julli ajjuma inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yal nañu yàlla woon dëgg lu ko waral mooy farfarloo te démb yi dégg ngeen waxuma sax ñu ne weer yi le 24 mooy julli même ñiy liggéey ci weer yi waxuma ñiy xool weer de astronomie yi ñiy liggéey ci weer ñoom ci seen bopp nee nañ la fenk weer yi feeñ na démb ñoom ci seen bopp tey maa leen déglu 8 heures ci rajo bi waxuma sax ay commission waaw léegi lan lañ bëggati xanaa du tiyaaba rek lañ bëgg xanaa du luy kontaan loo suñu borom mais Sénégal ñooy ñoo xam ne dañoo rëy bëgg nu kenn jiite leen ci diine waaye danañ mujj ginnaaw de ndax mbir mi moom jóge nekk jógewul fii dafay ñëw bis bu nekk ñu wax ko leneen nga wax ko nag ñu yaakaar ne kii dafa xeeb waa Sénégal xeebu ma leen de dëgg gi dong laay wax ma ne mbir mi fii la mujjee ñëw nii la jóge penku bi la jógee ñëw nii fii mooy mujj ñu ñoo nekk sow jant moo tax ñuy mujjee fii la mbir mi mujjee ñëw Mauritanie sax moo ñu njëkk a jot ci mbir mi Europe sax mooy waaw kon nag nan leen góorgóorlu toppe dañuy toppe kenn du nu topp waaw kenn du nu topp dañuy toppee kan la ñuy topp yàlla ak yonent bi ak dëgg gi fukki fanu tabaski mbokk yi tàmbali na tey ñu góorgóorlu ay fan la yoo xam ne mooy fan yi gën ci àdduna al imam awzaa'i qaala mu ne balagani anna al amal fi yawmin min ayaamin ashara ka qadri gazwa fi sabilillah yusaamu nahaaraha wa yuhrasu laylaha illa an yaxtassa imru'un bi shahaada doomu ndey boroom xam-xam buñ naan al imam awzaa'i nee na man de jot naa jaamu yàlla ci bëccëgi fani tabaski mi ngi tolloo xeex ci yoonu yàlla xeex bi nga xam ne ki nga xam ne day xare day ciy booleeg woor da ciy booleeg taxaw guddi ya lu dul yàlla wërsëgal ko mu shahid mu dee ci bëccëg gi kooku day moo ëpp tiyaaba waaye bu fekkee du loolu moom jaamu yàlla ci bëccëg gi fani tabaski amul lu mu tolloog xa ay tiyaaba ibnu hajar rahimahullah mu ne allazi yazhar anna sabab fi imtiyaz asara zilhijja bi hadihi al imtiyazat li makani ijtimai ummahat al ibadat fiha wa gayriha wala yati zalika illa fi gayriha ibnu hajar nee na li feeñ ba ñu ne fukki fani tabaski moo gën jaamu ci yàlla moo gën jaamu yàlla feneen tiyaaba yi ngi ci am doo ko am feneen mu ne li tax daal ñu wax mun a wax loolu mooy jaamu yàlla yépp dafa daje ci fukki fan yi dañ ciy woor dañ ciy julli dañ ciy saraxe dañ ciy jàng alxuraan dañ ciy tudd yàlla maanaam mboole mi xeetu def lu baax yépp dafa boolewu ci fukki fan yi daf cee daje loolu moo tax ñu ne loolu moo tax fukki fan yi gën waaye gaflatu baadu nnaas an mawaasimi alxayraat mbokk yi xoolal li ñu indi ci ay texte ci alquran ak sunna yonent bi ak borom xam-xam yi li ñuy wax ci fukki fan yi ngënee li ci nekk terewul am na ñu mel ne man ñoo xam ne yëgaluñ ko sax seen yaram gaafiluun dañoo sàggan amuñu sax conscience ñoom ah sama fu xamuñu sax lu xew ndeysaan xaflatu baadu naas réere lenn ci ay nit mawaasimil xayraat jamono tiyaaba yi buñ naan jamono bi jamono tiyaaba la ñoom seen yoon nekk ci te pourtant ñun ñu am portable instant yi ñu toll bu ne woon 1000 francs 10 000 promotion 1000 francs 10 000 portable lu ñuy def tey mbokk yi kan ci ñun ko am portable ku dul chargé damay laajte de bu ne woon 1000 francs 10 000 la crédit ñan ñu am portable ci biir jumaa ji na ñëkkati seen loxo ñu ne 1000 francs 10 000 di ngeen chargé wala du ngeen chargé waaw léegi nag xoolal yàlla ubbil ñu promotion terewul ñenn ñoo xam ne ndeysaan xëy na xëy na waa orange ak waa expresso ak waa tigo lañ gën a wóoloog yàlla xëy na ñooñu lañ gën a wóolu loolu moo tax ñu am yenn sàggante yoo xam ne dañ koo sàggan bu nu yàlla ubbilee ay buntu tiyaaba mu ne inna hadil ayam al afadil mbokk yi ci bëccëg yu màgg yu tedd yi tustadiina lil jiddi wal ijtihaad daf nuy woo bëccëg yaa ngi nuy woo pour ñu góorgóorlu waaye pour ñu sawar mbokk yi ngalawaay fahrisu ala istiglaliha ngalawaay nanu xër takkoo fukki fan yi pour jaamu ci yàlla nanu wàññi nañu wàññi nelaw guddi yi nañu jàng alquran ku doon jàng benn hisib jàngal ñaar ku doon def zikr yokkal li nga doon def lépp lu baax loo doon def yokk ko ci bëccëg yi dañu jëm barab boo xam ne de tiyaaba du fa doy te waaye lu mu indi indi ci tiyaaba dina ko xeeb fa ñu jëm tiyaaba du fa doy te loo buub ci ay tiyaaba indaale di nga ko xeeb boo taxawee ci kanamu yàlla tabaraka wa taala di nga xeeb li nga yor billahi wallahi taala kon bu la yàlla xéewalale ubbil la bëccëg yu mel nii profitool ndax xamoo ëllëg bëccëg yi dina la fekkaat kan ci ñun fii ci biir jumaa ji moo ko leer ne ëllëg waxtu wi dina ko fi fekk mbokk yi xamoon naa ay nit yoo xam ne daaw heure bii fii nii ñu toog toogoon nañ fi ak ñun ren nekk ñu ñu ngi fi biir suuf te jàpp naa ne ñooñu xam ngeen leen man ak yéen yëpp xam nañ ñooñu fii lañ doon ànd ak ñun toog ci dars yi bal am na ci ñoo xam ne sax ñoom ñoo doon def dars fii ma toog nii tey di wax ak yéen am na ko fi daan toog tey moo ngi ci biir suuf ah kan kan ci ñun moo xam ndax déwén heure bi dina ko fekk kan ci ñun looloo tax bu nu yàlla ubbilee xéewal nañ profitoo nañ profitoo ndax xamuñu ndax dina nu fekkaat mbokki jullit yi wa innahu la min al muassaf bokk na ci luy décourager nit bokk na ci lii wane ne dëgg-dëgg ay yaafus lañ dañoo yambare ci yoonu yàlla an tadxula hadi al ayaam wa nnaasu fi gaflatin faakihun xoolal tiyaaba yu réy yi ñu dëkkuy nit nit ñi fa la ñu nekk ci ay stade nit ñi lan lañ tal mooy nawetaan nit ñi lan lañ tal mooy ay théâtre 24 heures sur 24 nit ñaa ngi ci télé yi nit ñi lan lañ tak mooy tabaski waaw ñu ngi lambar lambari ci mbedd yi di uti xar nit ñi lan lañ tal mooy ay caaxaan ñaw yi yére boo duggee tey marché yi sa yaram day daw jigéen ñëpp a ngi ci marché yi ci mbedd yi di lambar lambari te ñu nekk ci waxtu jaamu yàlla waaye maa la sax nit ñi dafa nen ne jaamu yàlla mooy li nu nekkee naa dem jënd xar mu rëy naa dem ñaw yére bu rafet naa dem ut dàll yu rafet naa jox samay doom nañu kii nañu ñu fàtte kenn ci ñun du dajale ay doomam ci bëccëg yi sax wax leen ne bëccëg yi bëccëg yi jaamu yàlla la acca acca acca góorgóorlu leen jël leen seeni téere jàng leen def leen nangam def leen nangam def leen nangam kenn ci ñun du ko def yal yàlla jubal bokki jullit yi nit ñaa ngi ci caaxaan di ci intéressé wu laa fi xayraat yu saariuun nekkuñ ci yiw di ci jiitu di ci njëkkante déedéet ci caaxaan wala an il maasi yaqiluun waxuma sax ñu góorgóorlu jaamu yàlla waaye bàyyi mooy yàlla sax duñ ko def bal maa ngi xool démb benn image bu ma romb ci télé bi ñuy publicité ay soirée tabaski démb ay image romb nañ ma ci télé bi ma gis ñuy publicité ay soirée bisu tabaski waaw bisu tabaski ndeysaan ndeysaan jullit bu yendu ne day tabaski ba ngoon mu dem mu dem soirée ah avant ñuy julli ah ndeysaan allahu akbar wala anil maasi aqiluun bàyyiwuñu mooy qad ahammathum dunia allahu akbar ndax aduna rek moo leen ñor am na nit ñoo xam ne aduna rek moo leen ñor aduna kese léegi nag képp koo xam ne da ngaa nekk koo xam ne adunaa ko ñor nga koy toppandoo dafa lay alak dafa lay sànq ndax moom aduna la gëm su fekkee moom nga bëgg a def royukaay moom nga bëgg a xool dafa lay sànq dafa lay sànq indi la problème loolu tax bul xool ku bëgg aduna nga def ko royukaay bul xool ku bëgg àdduna nga koy toppandoo abadan saa yoo ko defee rek da ngay lor sa bopp da ngay xool ku bëgg yàlla di jaamu yàlla nga nekk ci wetam waaye ku bëgg àdduna nga teg ko ne tege ixwatal iman inna al insan minna la yatamanna maalahu wala yataman wala yumni amalahu yazidu fi gaflatihi wala yazidu fi darajatihi yusaari'u fi lfaani wa yubti'u fi lbaaqi allahu akbar kenn ku nekk ci ñun li mu gën a bëgg mooy alalam ni alal ji màggee ni compte bi gën a yokk moo ngi daw guddeeg bëccëg pour alal ji yokk waaye dawoo pour sa tiyaaba yokk ku nekk rek nattal sa bopp fii ñu toog li ngay daw ci am alal est-ce que yaa ngi koy daw ci say tiyaaba yokk nee na li gën a dal doomu aadama yi mooy ñàkk conscience guy yokk ñàkk conscience guy yokk daraja ji di wàññeeku loo gën a daw fëx ci àdduna sa daraja ci yàlla di gën a wàcc ñuy njëkkante luy jeex ñuy ndànku ci li fiy des dañuy daw di njëkkante luy jeex àdduna day jeex alaaxira gëla du jeex faale wuñu ko billaahi wallaahi taala te leer nañ ne àdduna day jeex leer nañ ne àdduna gii nu topp day tukki leer nañ ne alaaxira gën a ñu jëm moo gën a des yàlla wax nañ ko wal axiratu xayrun wa abqa terewul ñuy profité di daw ci luy jeex ñu bàyyi loo xamante ne du jeex wannaasu himamuhum alxayaat boroom xam-xam ba nee na nit ñi daal seen yitte mooy àdduna walam ara tulal xayaati yazidu xayral xibaal mu ne man de li ma gis ci dund àdduna lu fiy yokk mooy bëgg àdduna rek ak caaxaan loolu dong laa fi gis de loolu de laa gis nit ñi di def inna haazal awqaat ya muslimun juz'un min amaarikum wa diyaa'uha diyaa'un lakum wa ziyaadatun fi lxasaraatikum mbokki julit yi bëccëg yi ñu nekk xaaj la ci sunu dund maanaam bëccëg yi ci sunu dund la bokk dañ ko cee boole bëccëg yi nu nekk ci sunuy bëccëg yi fan la bokk soo góorgóorlu ci jaamu ci yàlla yokk nga sa fan yokk nga sa tiyaaba soo ci yàccaaralee perte nga ko te benn bëccëg boo perte mënut a ñëwaat léeg nga dégg nit ne lii de def ma ko tey suba dinaa ko def perte nga perte nga de lépp loo deful tey nga ne damay xaar pour suba perte nga ko parce que bii nga perte tey mënoo ko defaat abadan bëccëg bi moom dem na perte nga ko soo ne suba dama koy fay da nga ko faa def waaye est-ce que soo ko fa doon defee na nga ko doon defee fee noonu la est-ce que na nga ko doon teewloo noonu la est-ce que na nga ko doon taxawee noonu la xool leen rek ku julliwul tisbaar julliwul taksaan julliwul timis ba mu ñibbi këram mu ne naa ko fay est-ce que waxtu bi bi mu jotee boo ko doon julli normal sooy fay ñetti waxtu yi nga koy tegale noonu nga koy jullee fee looy def da ngay profité rek pour mu wàcc la waaw loolu gars yi naan loolu maire yi naan xaaral ma këpp këppal ko bu dee xale yu góor yi ñu ne xaaral ma dóor ko mu daanu loolu moo la ci fekk qaala Xaalid ibnu Maadan ida fataxa li ahadikum baaba xayrin fal yusri ilayhi fa innahu la yadri mata yuxlaqu anhu Khalid ibnu Maadan nee na su leen yàlla ubbilee buntu yiw gaawtu leen profitoo leen su leen yàlla ubbilee buntu xéewal góor góorlu leen xamu leen kañ la yàlla di tëj buntu bi waaw leen yàlla ubbilee ay buntu yiw waay waay góor góorlu leen waay xamu leen yàlla kañ lay tëj buntu yi قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله رأيت أمم الخلائق يدفعون الزمن دفعا عجيبا إن طال الليل فبالحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمر وإن طال النهار بنوم وهم على أطراف النهار على دجلة أم في الأسواق ليسان ibnul jawzi nee na man de gis naa lépp ci nit ñi dañuy daw ci àdduna daw goo xam ne daw gu yéeme la nee na da ngay gis ay nit toog ci mbedd di waxtaan ba bët set amul benn jaamu yàlla buñ def toog di waxtaan waxu bolle puy de mu ne nga gis ñii ñu ngi ci kanamu téere boo xam ne amul benn njëriñ di ko liir ba guddi gi jeex mu ne nga gis ñii ñu ngi ci tefesu géej gi di sangu fanaan fa yendu fa amul benn njëriñ mu ne man de lii laa gis nit ñi mu ne ñenn ñi ñu ngi ci marché yi dañuy dox ba seen tànk yi metti mu ne ni ñu mel daal man daal su ma leen doon nuróol maa ngi leen di nuróol mel ne gaa yoo xam ne dañoo dugg ci gaal fi safinatin wa hiya tajri bihim wa ma indahum xibarun mu ne gaal gaa ngi daw ñu ngi ci biir gaal gi kenn ci ñoom mënul orienté gaal gi amul amul capitaine bu nekk ci gaal gi mën koo dawal ña fa nekk ñëpp xamuñu sax nu ñuy conduire gaal gi ñoom ñoom nag ñu ngi ci gaal gaal gaal gi daw ak ñoom mënuñu ko tourner mënuñu ko arrière mënuñu ko jëmloo penk mënuñu ko jëmloo sow mu ne man de lii laa gis nit ñi nii la ñu mel daa noonu lañ mel ci àdduna dañuy daw rek lu tourner rek ñu daw ànd ak yow xamuñu fu ñu jógee xamuñu fuñ jëm xamuñu lan lañ bëgg xamuñu fii ñu ñëw luñ fi ut xamuñu buñ fi jógee fuñ jëm xamuñu kan moo nu fi indi xamuñu kooku lu mu nu sant xamuñu lan lan war a def len leen yàlla jógal mu ne war a aytu naadirin qad fahimu maana al wujud mu ne leel daal lu tuuti ci ay nit laa gis ñoo xam ne comprendre nañ maana dund gi xam nañ li tax yàlla bindi leen mu ne ñi ñu tuuti laa gis ci àddina xam nañ li tax yàlla bindi leen tuuti lañ waaw mu ne ñooñu nag fa hum fii taabatin zaadi wa taahubi lirrahil mu ne ñii ñoom foo leen fekk ñoo ngi ut yóbbal ñoo ngi préparé tukki bi ñoo ngi ut yóbbal ñoo ngi préparé tukki bi ndeysaan illa annahum yatafaawatuun waaye ñooñu tamit dañoo rawante am na ci ñoom ñoo xam ne ñu muus lañ foo leen fekk ñoo ngi profité pour am tiyaaba mbokk jibli bëccëg yi nu nekk bëccëg la yoo xam ne inna ayaama ashara zilhijja ayaamu alamal waljiddi walmusaaraa fa hiya ayaamu alfawzi walsaada walfalax fa haafizu alayha wa amiruha bi taati llahi taala mbokk yi fukki fani tabaski bés la yoo xam ne dañ ci laaj nit mu jëf waaye mu sonn pour jëf alamal waljidd jëfal waaye sonnal dañ ci sant nit mu góorgóorlu wal musaaraa gaawtu ci lu baax profito bés la yoo xam ne alfawzu wa saada texe ak sàkku yiw mu ne fa haafizu alayha ngalla waay wattu leen bëccëg yi wa amaruha dundali leen ko bi taatillahi taala ci topp yàlla bu kawe bi qaala haafiz ibnu rajab rahimahullah assaidu man igtanama mawasim alshuhur wal ayaami wassaat sëriñ buñ naan ibnu rajab nee na assaidu ku texe mu ne man mooy ki nga xam ne igtanama profitoo na mawasimu suhuur saison jamonoy weer yi wala ayaam ak bis yi ki texe mooy koo xam ne noppam yi ubbi na ko suñ nee bëccëg yi wala guddi yi wala bis yi ku ci def lii am lii rek moom mu def ko kii mooy ki texe mu ne waajooju ki texe mooy ki jéem a jege yàlla jéem a jege boroomam ci ay jaamu ci topp jéem a ubbi fenêtre yooyu yàlla di ubbi fenêtre yooyu nga xam ne bu ko yàlla ubbee ay ngelaw yiw moo ciy génn ngelaw yoo xamante ne ku ko xeeñtu wala nga keroo ko nga keppaaroo ko nga texe nee na ñooñu ñi texe daal mooy ñi nga xam ne dañuy toog ci keppaar yooyu di noyyi ngelaw loolu di ko dund ci seen yaram qaala bikri ibnu abdullah al muzni rahimahullah mu ne ma min yawmin axrajahu llahu taala ila ahli dunya illa yunaadi ibnu adam igtanimi laallahu la yawmun laka baadi wala laylatun illa tunaadi ibnu adam igtanimi laallahu la laylatun laka baadi bikri ibnu abdullah nee na dan na ko yàlla yërëm mu ne amul benn bis bu yàlla di fenk fenkal jant lu dul bis bi dina woo nit ñi bis bu yàlla xëy rek fenkal jant bi rek bis boobu dina wax ak nit ñi dina wax yaa ahla dunia ee yéen ñooñu àdduna moom bis bi mooy wax ak ñun góor góor lul tey ci man ndax xamoo am nga beneen bëccëg boo dese bu dul bis bi bis bu ñëw rek dina wax ak yow ne la profitool ndax xamoo suba dinaa fenkaat ndax yow xëy na tey jii nga yem mbokk yi am na ñoo xam ne dañ doon dund ak ñun tey mooy seen bëccëg bu mujj ci àdduna nangu ngeen loolu wala mu ne guddi gi bu ñëwee tamit loola guddi gi dalay woo wax ak yow ne la góorgóorlu xamoo ndax bët set dina la faj am na ñoo xamante ne suñu guddi gii tey mooy seen guddi gu mujj ci àddina d'accord ngeen wala kon chaque jour doomu aadama am nga bëccëg boo mujj am nga guddi goo mujj le ndax xam nga ko kon góorgóorlu ci bëccëg yeeg guddi yi ayuhal muslim yow jullit inna haazil ayaam al ashara fukki fan yii ijtamaat fiha anwaaun min al ibadat jaamu yàlla yu bari moo ci daje assalaatu julli wa sawmu koor wa sadaqa sarax wal hajju aj fa aksir min fi'li taat waay waay bëril waay yiw góor góorgóorlu nga bëri yiw wa baadir ilal faraid góorgóorlul nga respecté farata yi wa aksir min an nawafil góorgóorlul nga bëri naafila yi yonante bi doon na dénk sahaaba bu tudd sawbaan mu ne ko alayka bi kasrati sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajda illa rafaaka allahu biha daraja wa xatta anka biha xatia yonent bi doon na dénk sahaaba bi ko ne woon man de yonent dama bëgg nga dugal ma aljanna mu ne ko munuma ko laajal leneen ma defal la ko waa ji ne ko man de loolu dong laa bëgg mu ne ko kon day deel julli julli gu bari maa ngi la yëgal ne yow saawbaan doo sujjóot benn sujjóot lu dul yàlla dina la ko yëkkati daraja yàlla dina la ko si dina la ci sippil bàkkaar sujjóot boo sujjóot yàlla dina la ko yëkkati daraja yàlla dina la baal bàkkaar sujjóot boo mënta sujjóot mbokk yi fa min abwaabil xayri allati yuhibbuha allah bokk na ci yiw yi yàlla gën a bëgg ci bëccëg yii assalaatu julli ab jullit na ci respecté julli yi na dem fa ñuy jullee mu jullee foofu warka'u ma'a raaki'iin nga la waay bu ngeen gisatee ay nit di julli ànd leen ak ñoom julli wa kama amara annabi sallallahu alayhi wa sallam man sami'a an-nidaa fa lam yujib fala salaata lahu illa min uzrin yonent bi nee na képp ku dégg nu nodd jógoo julli demoo julli ji yonent bi nee na boo julli amoo julli lu dul nga am ngànt ñu ne lan mooy ngànt gi mu ne alxawfu ragal ngànt la wal maradu feebar ngànt la wal mataru taw ngànt la mbokk yi kon bëril jaamu yàlla yi ci weer wi ci bëccëg yi lu mel ne julli bi ñu waxoon léegi-léegi lu mel ne aj lu mel ne sarax lu mel ne lu mel ne ay tiyaaba yu dul jeex la fa min haadihi salaas awaab min amali saali asalaatu annaafil wa silaahu zaati lbayn wa husnu alxulq bokk na ci ñett yu ñu war a gën a bëril ci bëccëg yi mooy julli naafila jokk mbokk rafetal sa jikko ma min amal ibnu aadama shay'an afdal minha amul lenn lu doomu aadama di def yu ëpp ñett yi tiyaaba julli moo xam farata la moo xam naafila la defar defar sa digganteeg say mbokk waaye rafetal sa jikko ñett yi jaamu yàlla gënu koo rëy ci jaamu yàlla yi moo tax mu ne ana ñi sàggan ci julli ji julli mbooloo ana ñi sàggan ci seeni naafila ana ñi bëgg a gaawt ci def lu baax ana ñi nga xam ne ñoom ñooy dagg mbokk ana ñi nga xam ne ñoom la seen jikko ñaaw nee na waxtu wi jot na pour ngeen dëpp ngeen delluwaat ci seen borom tabaraka wa taala ay na haulaai jamian mu ne ñii ñëpp ñu lim anañu ñii ñëpp anañu mu ne nan tuub fal na tuub ilallah nanu tuub jëm ci yàlla min maasiyatina ci sunu moy gin koy moy wal nuslih ahwalana nanu defar sunu mbir sunu digganteeg sunu borom buum gi nu taqale sunu digganteeg sunu borom mbokk yi nañ ko yéwénal bu nu alak sunu bopp alak sunu bopp mooy lan bañ a jubóog sunu borom lëndëmal sunu digganteeg sunu borom ñaawal ko def ci yu bon ba ëllëg doo ñemee taxaw sa kanamu borom tabaraka wa taala loolu ab jullit na ko mooy tandiku ixwatal iman mbokk yi ci yàlla fazkuru min salaatiha wa siyaamiha gayra annaha wax nañ yonente bi alayhi salatu wasalaam benn jigéen a ngi nii faqad zukirat imraa inda nabi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ yonente bi benn jigéen a ngi nii moom day day julli guddi di woor bëccëg waaye day lor ay dëkkandoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen hiya min ahli naar ci waa safara la bokk lan moo ko dugal safara mooy jikkoom baaxul kon ci fukki fan yu mujj yi nan góorgóorlu ñu rafetal ci suñu jikko nan góorgóorlu ñu defar ci suñu bakkan ñu yar ci suñu bakkan ba nu mun a nekk ak suñuy mbokk suñuy ndey suñuy baay suñuy soxna suñuy doom suñuy dëkkandoo suñuy mbokki jullit liggéeykaay yi àndandoo yi soppe yi am di jàmm yi ñu defar suñu dikko jikko ak ñoom ba ñu mën a nekk ak ñoom mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xikma day jullite ko moom yàlla ne waman yu'til xikmata faqad utiya xayran kasira képp ku ñu jox xikma jox nañ la yiw wu bare bare bare bare mbokk yi kon lii mooy darsu tey noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh